El bi muy wax li mu li mu jiite que ne euh, c'est un dossier que mm. loolu wax te effectivement am na loo xamante ne nii euh, ça été ou peut-être ça aurait pu être clé bien avant euh, sax que lii di am parce que aj dafa am daf dañ dañ dañ koy régler bien avant muy jot te buñ koy régler bien avant muy jot ñoom xëy na peut-être ñoom nekk jotaguñu woon ci li nga xam ne nii mooy mooy mooy mooy nguur gi donc El Malick nekkagul woon euh, ministre de des euh, du du transport aérien euh, transport aérien donc mu nekk loo xamante ne nii xëy na peut-être moom ci boppam saytu na xam am na lum ci lum ci jot a xam ba wat cee jël ay mesures mais dama bëgg delluwaat ci. Birahim li mu wax par rapport ak euh, Air Sénégal gis nga seen une compagnie boo xamante ne nii boo bu dee dëgg rek moo neex yàlla sénégalais yi kontaan nañu ci ñoom de man waxuma rek pour aj bi parce que aj moom aj bi moom euh, xëy na ak situation bi xëy na ni mu demee mën nañoo comprendre parce que ñii ñëw ñi fi nekkoon nag ñi ñëw bees am na lu bëri nag lu luñ ci wax loo xamante ne nii les professionnels du métier wax nañ ko ci ci manque d'implication bi nga xam ne impliqué wu leen ci ak aussi tamit communication bi nga xam ne moo war a am te ñoom xëy na peut-être déggoowuñu te euh, Birame wax na ko Uray déglu naa déglu naa ko par rapport ak implication bi nga xam ne nii moom la état war a am mais am na loo xamante ne nii euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi mun nga leen ko bàyyil ñu jël ci seen matuwaay parce que Uray euh, am na lu mu wax lu important ci. Euh, ci weeru koor gi yóbbu nañu des centaines de de pèlerins et coow amut certes aj bi c'est euh, liggéey la boo xamante ne nii ay quotas yu ñuy jox ay dëkk la te quota bu ñu ko joxee dëkk normalement ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité dëkk ba ñoom ñooy xool naka la ñuy répartir mbir mi mais nag da cee am euh, dafa am loo xamante ne nii xëy na comme ni comme ni ñu ko waxee on ne peut pas être au four et au mun nañoo bàyyi benn responsabilité bi ñi nga xam ne ñoom ñoo co ñoom la ci seen xel gën a màcc ñu gën cee liggéey mais loolu yëpp dafay traduire benn manque de d'implication inclusive par rapport ak acteurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer ak bi au Sénégal te waratuñu war nañu weesu foofu man loolu laa yaakaar war nañoo toll foo xamante ne nii ñi nga xam ne ñoom am nañu expérience ci yenn ci li ñuy liggéey ñu mën leen a jox ay pouvoir yoo xamante ni da di permettre bu liggéey bi jotee ñoom ñu mën cee def li nga xam ne moo ci am wala ñu mën cee def li nga xam ne nii euh, ñoom loolu lañ loolu lañ ci xam pour mën a sax au moins soulager d'une part état mais revenant ci Air Sénégal Air Sénégal <laughs> il faut que il faut que état gën cee teg loxoom. il faut que état du Sénégal gën a jàppale li nga xam ne nii mooy Air Sénégal par rapport ak ci liggéey bi nga xam ne nii moom lay def. am na dëkk dëkk dëkk yi nga xam ne moom euh, walla sax dëkk yi nga xam ne bëgg nañu di wane seen bopp dañuy jaarale ci li nga xam ne nii mooy wàllum transport aérien pour mën a gën a fësal seen bopp fu mu nekk nii nag euh, ñi ngi def ay jéego naam mais jéego yooyu il faut mu am accompagnement boo xamante ne mooy bi ci war bu état war a def pour que Air Sénégal mën a nekk euh, compagnie boo xamante ne nii ku ci nekk da ci mën a gis boppam on a énormément de réclamations par rapport ak doxalinu Air Sénégal ci euh, euh, vol déjà vol yi les retards de vol ah euh, li nga xam ne nii mooy ni ñu koy waxatee sax mooy jàpp wala ni assistance bi nga xam ne ni moom moo moom moo am sur et surtout dans ces cas pareil bu situation amee ñi nga xam ne ñoom ñooy utiliser Air Sénégal du ñu xam ku ñuy waxal. ñëpp dañuy euh, ñëpp dañuy dem seen yoon mel ni comme si euh, ñi nga xam ne ni ñoom euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy clients yi ñoom ils sont comme c'est comme si mënuñu leen considérer wala teguñu leen fenn te loolu nag lu ñu war a mën a remédier la parce que comme ni ñu koy waxee li nga xam ne ni mooy compagnie aérienne mën na nekk vitrine u dëkk te mën na jàppale dëkk à ce que mu yegg foo xamante ne ni xëy na peut-être ñenn ñi duñ fa yegg te effectivement sax ñoom rek ñoo mën a yeggal Sénégal fi nga xam ne ni tànk wala oto mënu faa mënu faa yegg donc am na loo xamante ne nii état bi war na ko cee def bu baax a baax a baax mais aussi gën a impliqué ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi pour que ñu mun leen sax jàppale parce que ñoom ñooy def à chaque fois li nga xam ne mooy pèlerinage yi xam nañu situation yi boo jógee fii Sénégal pour dem Makka nu muy demee donc ñoom boo leen impliqué rek automatiquement am na benn décharge boo xamante ne ni wàññeeku na te dina permettre à ce que ku ci nekk war cee mën a gis boppam. d'accord monsieur Faye beneen beneen sujet boo xam ni euh, yéen kaay également dikk nañ ci journée.